at nga fa ñëw. waaw waaw loolu la wax su ma juumulee. Euh, nee na defaral na leen ku nekk ay kaamil personnalisé. Mhm. Euh, euh, yoo xamante ne moo ko barkeeloo ci jëmmi Serigne Saliou. Alassane Touré waaw Serigne Alassane Touré Isbu Tarxiya. Alassane Touré waaw xam naa ndeysaan maam Cheikh. waaw xam naa ni ni ngeen ko defee bi ñuy commencé rek noonu laa koy kiiwaatee rek man it maa ngi nuyu adduna bi yëpp tey siyaar Serigne Mountakha Bassirou. moom sëñ Touba sax borom bi yàggal ko fi te mu ànd ak wér. di siyaar sëriñ Cheikh Jëmb Fall moom sëriñ Modou Moussa Fall moom Cheikh Ibra sax borom bi yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér. te siyaar sunu buntu ci kër Cheikh Ibra Baye Ngunda Fall moom sëriñ Fallou Fall moom sëriñ Abdou Sakkour Fall moom Cheikh Ibra. Mhm. sax borom bi guddal fanam te wéral ko. Mhm. sama way jur yi ma bàyyi ca kër ga ak mbooleem koo xamante ne nii rek yaa ngi may bëgg te sëñ Touba tax. Mm-hmm. maa ngi lay ñaanal mucc gu ànd ak xéewal yéen ñi ma bokkal palaato bi ñii di samay yaay ñii di samay baay ñii di samay xarit ñii di samay mag maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di siyaara te it maa ngi leen di ñaanal jàmm ak xéewal amiin yàlla barke Cheikh ah. yàlla dogalee tamit bi ñuy ñëw ñu ànd ak ay nit ñoo xam te dañoo bàyyi seen nit yëpp ànd ak nun mm-hmm. Pape Mamadou ak Serigne Moustapha mi nga sëñ Modou nga xam te ne nit ñu baax lanu bi may ñëw tamit Matar suba teel woo na ma téléphone. Ah, su sama mm. waaw sëñ Mandiaye Ngom Mouride Sadikh. sëñ Mandiaye. bu Touba ca ngi lay nuyu. ndeysaan sëñ Mandiaye waaw moom it sama xarit la. bi may ñëw am naal yoo xam te ne naaloon nañ ko sax mag Serigne maxtaar ku am yéene la ci uh, Touba ca kanam moom Makhtar. mu ne woon lii su ma ñëwee dinaa ko wax ci télé bi. ba noppi ak projet yi nga xam te am nañ ko suñu diggante ak moom muy lu baax loo xam ne lépp jëmmi Sëñ Tuubaa moo ko waral mm. kon faaw rek ñu jàllale message yooyu ak sëriñ euh, sëriñ bi nga xam ne sama sama sama sama sama xarit la oh. sëñ abdu Akim mm-hmm. di nit ko baax di ko ñaanal sa bi yokk ko ci barke Serigne Bamba kon nañ wéyale xasaay yi ba ca kanam. jërëjëf bu ñu kiiwee rek. daal di dellusiwaat. yóbbante ñun waa réew mi yëpp. waaw mooy nga dolli plus bi. mooy. <laughs> dafay ñëwoon euh, defe naa ci jotaayu Cheikh Ibra invité woon ko. waaw mm-hmm. tàmbalee si Baye Abdou Diouf. Mhm. waaw Matlabul Chifaay. waaw bu gàtt lool ci YouTube bi. mu nga ko nu bëggoon daal nga continuer ko rek. continuer tuuti rek léegi sëñ Abo tamit mi nga xam ni lii ma sol nii moom ko jox. waaw sëñ Abo xasaayit moom Serigne Moustapha. xasaayit moom Serigne Abdou borom dër bi. moom bi may ñëw la ma ne kaay li ngay sol man maa la koy jox. bismillah kon ñu commencé ci xasaayit yi barke maam Cheikh Ibrahima Fall. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذها بك وزريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذك من حمزات زيت وأعوذ بك رب أن يحضرون بارك خادم الرسول الله خير سمد وباخي سبحانه ذو كنف وواخي الله خير سماد وباغي سبحانه ذو كنف الواغي ونحن في كنف المنيخ من كل شر وسلسنيخ أحمد خير الأنام منتقى ومبتدا من خالق في زمن وباء أمن خلاه من البلاء رفقني إلى الجنان جيم ولي سواي سعسع رجيم رفقني إلى الجنان جيم ولي سواي سعسع رجيم ترسي عن اللين والفجار كون بديغ العالم نجالي أكرمني بديغ بالكتاب وسألني عن جاي الجوهر بالختاب لم يدخلي إلى دخل الجنة خير بشارة عزل منا لم يدخلي زجر ولا ويد وهم إلى الجنان نهيد أخفى لي سر الوزن له حبا ولا إله إلا الله هداني الله وإنه البديع وخادني له بأنواع بديع برأني خالق من شواه وخاد لي من لا يرى شرواه كتاب ربي كان لي وكنت له ولله به سكنت ترسي عن الأقدار والمفاسد سلامتي من جالب لفاسد قاسدي أكرمني بديغ بالكتاب وزعل الأنجال بالختاب أكرمني بديغ بالكتاب وسالني أنجال بالختاب بك برمتبه xanaa loolu mooy li nga xam ni moom lañ doon barkeeloo rek ci xasaayid yi ba ci bàkki Cheikh Fall incha allah sama sëriñ bu baax hmm. bokk ci njabootu maam Abdoulaye Niass sëñ Abdou Moutalib